alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah di jaay itam ab jullit lay doon loolu doy waar engrais ñi xam ñun ñëpp ki koy jaay ki koy transporté ki lekk ci bénéfice bi ki nangam ki nangam lépp dañ ko condamné loolu itam réew mi war na ci wax parce que pays laïque la rek taxut ñu bàyyi xale mu gën a sànq yonent bi dafa wax ju am solo unsur axaaka zaliman mazluma sa mbokk na nga ko dimbale buy tooñ ak buñ ko tooñee saxaaba yi ne ko ñun de mën nañoo dimbale koo xam ne dañ ko tooñ waaye ki nga xam ne moom mooy tooñ ni ñu koy dimbale yonent ne danga koy wan njuumte gi mu def looluy dimbala warta waruñ ko encouragé par di wax naan réew mi état laïque la état laïque la ay état croyant la réew mi quatre pour cent dañoo nekk nit ñu gëm moo xam ñi gëm yonent yàlla Muhammad la wala ñi gëm Seydina Isa alayhi waaye réew mi moom réew yi gëm la peut-être tubaab yeeg Senghor bi ñuy dem négociation yi defoon mooy nañ fi bàyyi état boo xam ne nii lay fonctionner mooy yooyu moom ci loxo ñaar baaxul ci seen vie sociale parce que mën nga màndi ñëw sa yaay di wax ak yow ko nga pipp ko mu daanu bopp bi dal fenn mu dee fekk yaa ko rey te bi nga koy rey teew ko parce que sàngara see lay commandé man nga màndi ñëw parce que mënoo ñàkk tëdd ak sa soxna julli na ngee naafila na ñaan na tëdd na nga ñëw ci sàngara si nga naan joteeg moom rey ko ci guddi man na nekk man nga rey sa doom man nga rey sa bopp sax moo tax loolu ñu ngi profité xam naa waxtaan bi loolu waxtaan ci laaj na beneen jotaay waaye ñu ngi ñaan ñi nga xam ne yàlla nattu na leen ci ñu dellu gannaaw ci loolu parce que amul benn njëriñ du ci àddina du ci àllaaxira ñi ñaanal réew mi ci guddi yi ñu toll koo xam ne oor nga ci nga ñaanal réew mi réew mi génn ci jafe-jafe yi nekk jafe-jafe yi bi ci njëkk mooy xol yi xaw a soriyant opposition mënta ñàkk ci réew waaye opposé ci dëgg yi te war na mën a am ñu bëri nag ci politiciens yi Machiavel yi mooy seen kilifa livre boobu ñuy wax le prince te li muy wax ay théorie la yoo xam ne taxawul fenn benn waaye bu gëlëmoon la rek jege benn prince bu bugg a nekk buur mu di ko wan nan la ñuy gouverner nan ngay utiliser kii soo koree sacrifier ko sànni ko ñun nekkuñ ci royaume ñun république lañ amee donc pratique ku prince mënta dox ci république loolu réew mu amee buur ak prince bu war a falu wala ay prince yu war a falu yu bëri nag théorie yooyu lañ gëm te fenn taxawul fenn moo tax bàyyi teel wax ne ah, fa ma napoléonun aw léninun wa marxun bi muuxan ilayhim xale an ka xabal ñooñu borom théoricien yooyu yëpp dawuñ ki yàlla yónni ci yow saxaan yooyu teg ko fële déglu ki ñu yónni mooy yoon sell Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jullit yi nañ delluwaat ci lislaam surtout ci guddi al islaamu yajubbu ma qablahu moom la yonent bi wax ki doon naan sàngara ki doon rey ki doon tu drogue ki ko doon naan ki doon sàcc ki doon njaaloo bés bu tuubee bu eboo def na loolu juróom fukki at téeméeri at ñaar fukki at yàlla effacé na ko jeex bunt boobu kay yaatu na i at mu bees bi di ñaan yàlla mu nekk at yi barke at yi xéewal at yi jàmm ci lépp nag nawet bii nga xam ne jël nañ suñ yaakaar suul ko ci suuf si ñu ngi ñaan yàlla mu génneel ñi ko ñu ngi koy ñaan mu def ko wërsëg